bokk yi mbir mu doy waar moom ngeen ni gis noonu ki nga xam ne mooy xalifa bu Medina Gonaas ginnaaw bu mu jullee tey jii ci tabaski bu noppi ñu daal di koy attaqué euh, ba jamono yi sax wax nañ am na ñaari ñoo ñàkk nañ seen bakkan mu nekk loo xam ne xam ne rafetlu wuñ ko benn yoon xam naa dañ leen di bàyyi rek après ngeen seetaan vidéo yi ngeen xool naan la demee waaye daal luñ ci mën wax daan mbir mi doy na lool mbir mi doy na lool lool lool dëgg yàlla nag war nañoo gën a yokk sécurité bi xam nga nag ñi def lii lan lañ ci jublu waaw waaye daan mbir mi doy na waar lool dañ leen di bàyyi rek ngeen si daan li nga xam ne euh, moom mooy vidéo bi ngeen xool.